immense plaisir de vous retrouver, mes très chers internautes. mbégte bànneex bu yaatu wala ngaan ba tàbbi sama biir xol itam mi ngi seen biir xol yaakaar naa fii ci kër gi Channel mbégte bu baax a baax am tawfeex di leen jaare un peu partout à travers le Sénégal di leen jaare bu baax a baax di wax itam ñu ngi wax mille merci ci seen ay réaction rawatina itam topp gi ngeen ñu topp ci émission bu mag a mag bi nga xam ne moo di toog thème ñu ngi toog di waajal thème ba spécial facilité xam fàcce ak yéen di leen jaare bu baax a baax di ñaan itam ñoo ci ay tolof tolof mbaa gàllankoor yàlla di di indi saafara ak tawfeex ci dund di ñaan itam tëdd ji lool hôpital bi yàlla leen fa yàlla defal jàmm ak salaam ak tawfeex jël jàmm jooju itam dugal ko ci kër yi dugal ko ci hôpitaux yi di ñaan ñëpp jàmm ak salaam ak tawfeex ñi way dawlu yi nga xam dañu làqu yal leen yàlla yeesa yërmande seen kaw te yeexe leen te xarale àjjana firdawsi ya gën a kawe-kawe te yeexe ñu autant pour moi maa ngi leen di jaare bu baax baax mes très chers téléspectateurs donc sans plus tarder xam ngeen ñu ko defee toog thème dañ ci ànd ak une dame ravissante elle est toute belle machallah elle se nomme tout simplement Codou Ndiaye ma très cher maa ngi lay jaar di la bégee di la bàyyi ak mbokki téléspectateurs yi lay seetaan. delloo a DJ Bachir. ziar naa la ba am nga jàmm ak tawféex. waaw maa ngi sant sa noir nga def la say tànk <laughs> xam naa gis nga wala waxtaan bu. waxtaan bi spécial ma gis kanam bu sérieux ah ma bàyyi la téléspectateur yi. asalaamaaleykum mbokki téléspectateur yi nuyu naa leen bu baax a mhm, baax di mhm, mhm. nuyu sama mbokki internet yi. di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax. kenn ku ci nekk fekk la fa nga toog ne la jàpp loxo. di leen wax ne tey ñoo dellu si seen émission toog thème ma ànd ci ak sama frère sama xarit euh, DJ Bachir. nii lañ koy faral di defee chaque jour indi ay thèmes yu am solo yu yu yu jaar yoon. balaa balaa ñu cee jàll nag dañuy du tee dañuy wéyal nuyoo bi mhm. nuyu ñëpp di ziar ñëpp di mhm. ñaanal ñëpp jàmm ñi nga xamante ne ñoo tëdd ci lalu hôpitaux yi di ñaan yàlla yàlla fëgg seen i bopp amiin ñi nekk caabi féete leen ginnaaw di ñaan yàlla yàlla génne leen si euh, euh, di ñaanal ñëpp di ñaanal kilifa diine yi sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg te di ñaanal bépp kilifa diina bépp tarixe bu fi nekk rek di mhm. ñaan yàlla yàlla guddal fanam wéral ay cëram ñaanal ñëpp maa ngi ziar ñëpp di nuyu sama yaay jubbu mhm. munas mang mhm. lay ziar bu baakha baax sama yaay ju baax joju mhm. nuy sama papa sama nijaay sama xarit mang lay nuy dila ziar bu baakha baax dila wax ne la leuz dj eh, bashir <laughs> leuz sama xarit bi dangaa na ma lëz quoi alors asseyez-vous très confortablement ta xamni tay inshallah allah li nga xamni ne ci biir rew mi fani ñuy genn di ay ñaawteef di itam dina xaraktis bu dal ci Sénégal ndax Sénégal moy benn bop la kenn mënu ko xar ñaar li ñoo fi la forte ba taxna fi ñu toog ñu am naqar fas yéene partagé naqar boobu ak yéen waaye itam jëm ci wut ay solution bu ñu nee solution mooy xam ngeen ne fan yi ay meurtre ay double meurtre di ay ay doomu aadama yoo xam ne am nañu avenir ay doomu aadama yoo xam ne tey njariñu Sénégal lañu te nit nit tey mbokkam waaye itam nit nit mooy lor doomu aadama mm-hmm. donc tubaab dafa wax l'homme est le remède de l'homme waaye itam jàpp nañu lu dëgg la waaye nit nit mooy garabam waaye nit nit mooy posanam. Mhm. ba tax na itam temps i réew mi jaxasoo na ci lu baree bari moo tax ñu fas yéene toog fii thème ak yéen thème bu spécial thème bi nag leen kese la mooy peine de mort est-ce Sénégal dafa ko war a appliquer maanaam ku rey nit ñu rey la. Mhm. maanaam ku sàcc ñu dagg sa loxo et cetera et cetera yoo xam ni ça vient pas de nous. Mhm. yàlla moo ko wàcc ci alxuraan di aay yu wóor sûr et mu ni doxeleen nii ci islam. itam ñu teggi loola di doxe neneen mhm. ba tax na donc dañ koy waxtaan ak yéen nos téléspectateurs mhm. ñu ngi leen di joare waat bu baax a baax waaye duñ ci wet benn yoon ma ci ànd ak code léegi nag waxtaan dafay am cause am conséquence mhm. dañu bëgg a tàmbale ci cause bi ndax Sénégal bi ñu xamoon di Sénégal bu 1900 nangam Sénégal bu mille Sénégal dañoo fi dégg yéen assassinat wala ay meurtre wala agression ba nit di si ñàkk bakkanam dañoo ci gis léegi nag dañoo taxaw seetlu ni vu que moment ñu nek ni Sénégal euh, contrôle bi dafa dafa am tiaganté mm-hmm. manam drogue ba ngi dugg normal xalé ya ngi volé xalé ya ngi sous euh, langage bi dafa dégénéré lu way neex wax lu way neex def réseaux sociaux yi tamit comblé manam ça dit que c'est des choses yo xamni c'est aussi bizarre mais c'est dommage en tout cas mm-hmm. euh, pour man dañuy taxaw ci benn point bi spécial muy mm-hmm. drogue ndax buñ ne drogue xamna ñu mi yàqee société dëkk bu mu bari assassiné fay bari dëkk bu bari day manque de insécurité fay bari. Mhm. tay sa taxaw setlu wala sa càmbar ci biir lolu ban position la. Sénégal Sénégal fim toll ni bu fekente ne fi fi mu toll ni mhm. mhm. ni la nar continuer. tey ñu koo jaay ku nekk jël sa cër. jël li fi am dem. non xam nga buñu buñu bu jaay Sénégal nañu boole Sénégal. waxtaane ko tabaxaat réew mi jikko xam nga jikko mooy doomu aadama nañ defar jikko yi quoi jikko yi mhm. est-ce que jikko yi nit mën na leen a defar bien sûr comme ma la wax li ma la wax mooy cause yi mhm. parce que lu fi amul woon bu fi di am mhm. ñu gis affaire ñaaw téef nañu fexe ba xeex li nga xam ne bokkul si ñun parce que nit ku nekk dafa am aada ak cosaan ñu jël lu ñu moom toog ci ndax olof njaay def ni ko wàcc àndam ànd boo dem fekk fa borom nañu toog suñu ànd te xam ne mhm. ñun mérité ay drogue mhm. ñun mérité wuñu ay volé ñun mhm. mérité mandi xam luñu xam mooy dëkk jàmm ak taw tawfeex demoon nañ bañ Sénégal c'est le pays de la teranga teranga googu nag dafa réer mër quoi voilà instant yi nii parce que boo waxee loolu tra man mën naa ne dama naan teranga gi dafa réer ndax Sénégal demoon na ji ñu toll da ngay rus sax nga taxaw ne man Sénégal laa dëkk da ngay toog. Mm-hmm. étranger yi nga xamante ne ñi ngi Europe. dañuy toog naan la ay naka seen réew ma. Mm-hmm. temps ni mu mel. Mm-hmm. ñaaw na metti na. vraiment daal dëkk bi léegi instant yi amatul benn sécurité. te beneen bi ci des mooy. Euh, drogue bi nga xamante ne mooy dugg di gauche à droite. xale yi di di utiliser. di ci mel ni ay volet ay suus. finalement jéggi na dayoo. pour man état bi moo ci war a gën a mën a jëlaat ay mesures am. parce que drogue bu démé bay circuler ci réew mi rek war nañu xol anam ba muy hmm ba nga xamante ne daanaka mën naa ne bari na ci réew mi. exactly parce que mhm. légui bu njëkkaan sax jafé won na mais léegi hmm parce que man mën ne drogue bu bari bi mo waral légui ñaaw téfi gën bari. bien sûr nit ñi dañuy dem ba nga xamante andu tuñu ak seeni conscience tranquille. parce que yéen yi voilà. Mhm. Mhm. yéen ku and ak conscience tranquille. mëno ko def. parce que mënuma xol nga tim sa morom ni diko def di def ci mom ay. affaire anam yoo xamante ne yu ñaaw la yu metti la. bien kon réew mi damay ñaanaat état bi mu gën cee jëlaat ay mesures am. Mm-hmm. gën a taxawaat dimbali jeunes yi dimbali nit ñi. Mm-hmm. nañ bàyyiwaat xel bu baax drogue bi dugg di génn. douaniers yi seen liggéey nañ ko gën a taxawalaat. Mm-hmm. gën a renforcer sécurité bi. waaw message boobu rek laa fa mën a jaarale. c'est très important parce que bu ñu nee drogue benn traitement la. soit nga koy jël. mais du traitement boo xam dafa baax traitement maanaam traitement boo xam ni par exemple mu ngi mel ni nga feebar. Mm-hmm. nekk hôpital ñu ne la jëlal lii pour améliorer sa santé wala nga wér mais drogue moom au contraire da nga koy jël bu nekk nit ku normal da ngay da ngay perte connaissance mhm. boo mën nga toog ak sa yaay wax lu ñuy loo xam ne moom yow boo nekkoon nit ku lucide wala ko consci am conscience tranquille doo ko def donc loolu ñu ñu koy bay bayal di ko bay bayal mhm. ba mu dugg ci réew mi ba am fi place mhm. xam nga dafa am place ci réew mi ay volet ñu ñoom xale yi di ko def ay challenge maa ngi volet maa ngi suus ah. yooyu nag donc pour man état bi daf ci waroon génn Didier Bachir lii de buñ ci jógul buñ ci waxul réew mi fi mu nar a jëm du baax de waaw réew mi jëm na foo xam ne mi ngi ci guddi déjà réew mi déjà dem na foo xamante ne si mhm. kenn mënu la ko wax mhm. mais lii nii buñ ci jëlul ay décision ni nii nii mhm. non rew mi fim na la a jëm baaxut mhm. di nga gis ñu gaday ñu bari mhm. genn senegal wa decision yi ci wara a jël nak mooy état bi mhm. ministre de l'intérieur bi jéey am sax ñu ben communiqué parce que c'est pas bien nga jité rew itam nga gis say doom rew di galankoru ngay gis ay meurtre yo xamni c'est aussi grave nga tok sang nga genn communiqué pour massawu coon dañ ko doon reproché euh, ex président bi di Macky Sall tay ñom itam wa nguur gi ñu ngi koy def parce que ben bakkan rek dafa fort waxuma la semaine bi nga ñak ci lu mat ay 4 personnes yoo xam ni ay être humain lañ yoroon ay vie mhm. doon dundal seen ay njaboot mhm. voilà loolu tamit c'est très important parce que moom mhm. mi nga xamante ne mooy njiit mi war na mën a génn masawu ñi nga xamante ne temps yi ñoo ñàkk seen bakkan seen ay mbokk parce que yoon la parce que bu dul dara ay citoyen lañ ay nit lañ yoo xamante ne dañoo bokk ci dund gi bokk ci réew mi kon war na mën a taxaw même bu fekkente ne sa jëlagul ay mesure am mu génn devant tout le monde mhm. masawu leen jaale leen au moins ñu xam ni kat suñu président mi ngi mhm. bàyyi xel ci li nga mhm. xamante ni jéye yi nga xamante ne mu ngi xew ci réew mi parce que Macky Sall dañ ko doon rapproché loolu lu bari kon tey jii moom mi fi mi nga xamante ne moo fi nekk moom tamit nay bàyyi waaye xel mais il a il a pris des mesures malgré tout parce que dugg na police changé fa ay système changé fa ay njiit pour amélioration pour nit yi mën a nekk si jàmm pour est-ce que mi ngi bàyyi xëy na mi ngi bàyyi xel parce que amul xëy na sax parce que c'est vrai. bon demee ba police mhm, mhm, mais mhm, communication bi aussi ci la bokk. c'est très important. waaw tu as raison parce que Sénégal itam dañoo bëgg ku ñu leen masta. malgré c'est difficile. mais itam xeyna wax bu neex sarax la. lolou lañuy loolu lañuy woy monsieur le président Bassirou Diomaye Diakhar fay ñu wax itam ci benen ponk nee nañ drogue day. yàq jëmmi doomu aadama mhm. ci santé waaye itam da yóbbu espirém mhm. waaye itam am na yenn yoo xam ni maanaam bëgg xaalis la agression mhm. euh, suñu papa Omar Pène way na ko nee na bëgg xaalis nangoo liggéey moo tax nga di agressé donc agression yi tamit ñu ngi faat ay doomu jàmbur est-ce que tamit duñ xoolaat jikko yi bëgg xaalis te nanguwoo liggéey gis nit ku daan dooleem ba noppi itam nga dem fekk ko fu mu nekk assassiné ko ngir benn 5 millions bu mu yoroon ngir benn 2 millions bu mu yoroon est-ce que c'est normal aussi. non loolu moom c'est pas normal. Mhm. parce que moom dama naan euh, jeunes yi dañoo war a takkaat seen liggéey ñu dem liggéey. Mhm. parce que tamit. neexul tamit. Mhm. nit ku liggéey pendant des années. Mhm. pendant des mois. Mhm. nga nekk di ñafe sa life ba yàlla may la tey lim lay may. benn nit benn inconnu jóge fële. benn jour rek. xañ la sa vie. bëgg la xañ sa alal neexul ba neexul mais dafa metti. dafa metti te réew mi léegi sax déjà da ngay toog wax sax. risque la parce que yaa ngi ci risque. parce que réew mi nekk na loo xamante ne sécurité daal moo fi. maanaam dañoo nekk ci position bu violent. bu violent merci da ngay wax nit mu ni la dinaa la faat. waaw dinaa la rey maytuma. waaw nga jàpp ko ay caaxaan suba mu jam la paaka nga dem hôpital mu ni la pareeguma ci yow. moo tax vu que kon li ñu waxtaanee tey mu di peine de mort. Mhm. il fallait ñu appliquer ko. Mhm. ndax jamonoy Abdou Diouf yenn jamono yu njëkk amoon na mais monsieur le président monsieur Abdoulaye Wade moo ñëw changé lu bëree bëri ci système bi. Mhm. xaw ma nag peut-être lan moo tax mu def ko. Mhm. xaw ma yërmande tax mu def ko xaw ma dara mais bon. Mhm. saafara ju jur jàngoro la. parce que depuis lors affaire yi mi ngi gën a bëri mi ngi bëgg a metti est-ce que tamit daganul ñu daganal li nga xam ne moo di peine de la mort. waaw euh, loolu moom yaakaar naa ne buñ ko fi defoon. réew mi ñëpp dinañ nekk ci jàmm. waaw. parce que yàllaa ko wax ci charia mhm. naam seetu nag yàlla wax mhm. ñun ñëpp sénégalais yi appliqué wuñ ko mhm. parce que pays <laughs> lim tere bari na diine lim mais côté boobu dafa war a côté boobu dafa war a euh, maam par exemple sax man balaa meew mu fi ngay waxee mooy lu yàlla digle yëpp nit mënu ko def bien sûr nit mën na ko def da nga naan mais euh, sàggante ak ak ak topp loo xam ne peut-être sa naf su bakkan la quoi su bakkan la voilà mais li nga xamante ne moom mooy li nga xamante ne màkka loi boobu la ñuy appliquer. bien mooy que ku rey dañ lay rey. Mm-hmm. ku sàcc ne dagg say loxo. Mm-hmm. mais réew mi instant yi dañoo war a jël suñuy décision yu mat sëkk. gis nga mm-hmm. loolu buñ ko fi defoon. billaay wallaay léegi nga gis rey dinañu wàññeeku. crime yi dinañ ko jël tegeeku ne parce que ku fi rey dañ laa war a rey. mais itam beneen côté bi tamit mooy. est-ce que justice mi ngi def yoonam ci meurtrier maanaam nit ku faat bakkanam dañuy gis naan kii def faat na bakkan waaye dafa libre dañ ko grâce dafa am grâce présidentielle wala dafa may ay lijjanti waaw loolu bari na fi parce que gis naa ñoo xamante ne dañuy faat bakkan mhm. après du mujj fenn nga gis ki nga xam ne way juru ki ñu faat la mooy génn di naqarlu mhm. ki dañ nit dafa rey sama doom ba pare doxaat ci mbedd mi doxaat ci mbedd mi waaw mu nekk loo xamante ne tamit dafa metti ci xol mhm. parce que ku ne xam ne ne doom dafa sax ci xol rawatina nga rey doomu jàmbur ba pare xëyaat di dox yow ñu lay gis te loo xamante ne di kew la dara mm-hmm. kon yoon nay gën a bàyyi xel te man li ma ci metti mooy fii ku fi da ngay xëy xëy mm-hmm. bis ñi indi la la ay kayit ñëw taxaw ne la wérul mm-hmm. dafa dof ay kayitu dofam la am mais loolu moo fi war a jeex